attention wal Seck il faut ñu tudd ko ci ndax bu leen fàtte nii la ni la ni la bu côté rap mom Dip mo gañ ahlu break sama logo bi Dip dundu gis tayé ko Peuzzi almodu Queen bees sama chewing gum Adjuza mariage clip yi génn dafa bëri lool pour le moment ahlu break sans conteste mooy number one fi nek bo demé YouTube moy vidéo bi nga xamné mo gëna kawé ci classement bi bamay xol légui mi ngi nek numéro 12 amna suma djuma ma juuma 118000 vues matagul sax ben fan mu am mu romb Dip dund Guiss ndax Dip dund Guiss vidéo am fayeeku mi ngi um, ci classement bi té amna na presque 238000 vues Akhlou Brick mooy number 1 lutax parce que vidéo bi dafa rafet ñu ngi ko tourner fan naa bu bees bi mooy fi mbëri di bëree bi nekk Pikine vidéo bi rafet na trop mais li liñ ci woy moom a jaaxal sama logo maanaam ñoom dafa mel ne vidéo bi publicité la seen seen ay t-shirt yu ñuy defar wala seen casquette yu ñuy defar ak seen yére daal yu ñuy defar di ko jaay ah, en général rappeur li ñuy yaakaar ci yow mooy nga engagé ngay wax ci loo xam ne dafay yee nit ñi comme Samba Peuzzi moom laay def numéro 3 parce que Dip Doundou gis laay def numéro 2 mais avant may Dip Doundou Guiss Samba Peuzzi woyam bi taalibe yi la ko way te gis nga vidéo bi moom commencement bi rek la ci la ci feeñ mais nga gis histoire bi taalibe yi niñ leen di maltraité niñ leen di dóoree xam nga sa yaram day daw mais léegi saa yu ma saraxee taalibe sama xel day dem ci Samba Peuzzi te booy boobu wax naa leen ne c'est le rappeur le plus stylé booy bi dafa am talent kan fan la nekk reptile te reptile mooy number one Euh, rap groupe Sénégal loolu def naa kenn weddiwu ko ndax karabalik bi nga xam ne moom moo leen di defaral ay biit dafa aay ñi leen di defal vidéo dañu aay li may wax ci euh, Akhlou Brick mooy vraiment seen clip bi commencement bi rafet na mais fin bi dafa xaw a mooy surtout fu ñu wanee ñaari reen yi ak roi bi ren yi gaa seen seen meuble pour man waroon na mën a gën a riche xam nga couleur yi euh, weex bi ak jaune bi booy set àndul noonu en plus roi dafa war a toog ci ci trône mais mosuñu gis roi boo xam dafay toog ci euh, canapé reen yi ñu ngi toog ci ay trône xam nga reen yi moom macha allah rafet nañ nday Astou Sall kenn dootu ko présenté donc ñoom ils ont recruté de de grandes figures ndax yombul nga am Miss Sénégal nga am ko sa clé en tout cas ñun xooluñu loolu yëpp li ñu xool daal mooy ne nit ñi bëgg nañ ko te fi mu nekk mooy topp attention Wally Seck il faut que ñu tudd ko ci ndax bu leen fàtte nii la nii la nii la ak action bi ñoo xaw a nduroo rythme ku ñu wax Babs am na keneen ku mu collaboré ñoom ñoo def biit biit bi dafay rappelé biitu nii la nii la ah nit nag boo defee dara ngay woy ak Wally nga am ay mi millions et quelques de vues xam nga waxuñu ne Wally Seck rek moo tax ngeen am vues yooyu mais boo defee dara mu réussir da nga koy continuer biit bi neex na ñoom dañu am seen originalité ñu ngi leen di encouragé Dip Doundou gis li ñu ci jaaxal mooy clipam logo bi dafa nekk ci ginnaaw waa Akhlou ñu ngi woy logo mais Dip Doundou Guiss xëy na coïncidence la biit boobu dafa neex ndax karabalik defe naa moom moo lay moo koy defaral biit biit bi neex na rab bi gaaw na bu dee côté rab moom dib moo gañ parce que rabam euh, style bi dafa gaaw xam nga loolu yombul ngay rab ni mel ne mitrailleuse mais en tout cas ñi romb nañ dib li tax nag ñu romb dib dib ba muy génn vidéo am dafa fekk Sidi Lamine Niass hmm, yàlla ko yaay mu gaañu moom moo occupé ak actualité bi mais en tout cas Akhlou Brick moom gëm nañ ne dina dem ba nekk number one pesi moom

mu am genre téléfilm ci biir ci vidéo bi xam nga nga wone beneen facette mais en tout cas amuñu dara lu ñu mën a wax ci vidéo bi moom rafet na trop. léegi nak on va voir ndax nit ñi ndax fans yi dinañ ko accueillir comme ni ñu accueillir takk ma ndax takk ma dem na ba am 1 million de vues. Pape Diouf elle est à moi moom ak fali Ipupa 10 300 vues rek laa gis ci compte YouTube Pape Diouf am na 1200 abonnés.

Euh, publicité yàgg nañ ko publicité publicité moo tax xëy na amul engouement bi comme euh, euh, décollé wul comme nu mu war a décollé ndax titi looloo ko daloon ci tamit bi. bu amee lu bees da nga koy génne rapidement mais nag on va voir ce qui va se passer avec. Adiouza mariage li tax ma def ko numéro 6 mooy son bi mbalax la. clip bi nice na lool vraiment ndax daf ci def ay moyens. nit ñi dañoo bëri ci clip bi location yi maanaam stage yi fi ñu ko defee dafa bëri wane nañ ko ci kër wane nañ ko ci lu mel ni hôtel wane nañ ko ci terrain de golf moo tax mi ngi trending YouTube defe naa mooy numéro 16 su ma mi ngi ci classement bi yi ñu gën a seetaan am na 44 000 vues mais nag Mala Nopp boobu il faut mu génn genre album bu ci Mala Nopp pour mën a gën a mën a décoller